leen jàpp ne amul njariñ ci tabaski njariñ yi ci nekk loolu lañ leen baaxee mooy yi nga xam ne dañoo baaxoo buñ ci noppee sànni ko euh, ñu baaxee leen njariñ yi nga xam ne euh, moom lañ ci xam euh, ñu tàmbalee ko ci buum gi nga xam ne mooy yeew xar mi buum gi nga yeew sa xarum tabaski soo ko rendee ba noppi jëlal buum nga denc saa boo amee xale boo xam ne daa jubadi maa nga bañ mu jubadi nga dagg ca buum nga takkal koo ci ndiggam bépp xale boo xam ne takkal nga ko moo xam muy góor wala jigéen insha allahu rabbi du mooy yàlla soo ko fekkoon di mooy yàlla ci kàttanug yàlla yàlla mën na koo baaxee ba dana ko bàyyi bu dee jigéen nit insha allahu bi boo ko takkee yi xew léegi ñu naan di wele nañ ko wala diw tëddee nañ ko yooyu suñ borom subhanahu wa laa mën na ko ci musal ñu di leen soññ nag ci ngeen farlu ci bu baax a baax ndax jamono ji yàqu na lool lool sa njaboot jaaxal na la ca mag ñi daanan aar njaboot yi ci yu mel nii rek ci leen leen daan aare kon képp koo xam ne yor nga ak njaboot muy góor ak jigéen fàggu ci donte da leen koy euh, ñawat ak pap téere baa nga defal leen ko ak ba defal leen ko ko ñu takk ko ndax mucckat jar na lu ne euh, bu ñu ci jógee euh, ba ba ba rendi ko ba noppi wextan wa am na ay njariñ yu ci nekk mooy wextanu xarum tabaski képp koo am ne xam ne dafa am dafay faral di am xol bi metti moo xam ne SMA wala ulcère wala du xol di méttee mbaa sax euh, lu mën di doon ci xeeti tawat yooyu nga xam ne day day tawati xol la mbaa sax hépatique bee mbaa hépatique nangam bu mu ci doon rek fexeel ba am ca toq ci cib kaas naan ko ca ñaan ci suñ jublu ci ñaan suñ borom saafaraal la tawat jooju insha allahu rabbi boo ko defee suñu borom dana la ko ci saafaraal ci coobareem